peut-être am na si benn part de responsabilité parce que nit bu la joxee maanaam image am comme à chaque fois artiste yëpp ni ñu koy defee conseil en image dafa am donc li nga xam ne nii lépp li nga xam ne nii moom ngay sol wala lépp li nga xam ne nii boo yëg si kaw seen moom nga nar sol boo naree changé ni nga nar a changé loolu yëpp dafa war a am si artiste mais est-ce que te jii suñu artistes yi am nañ loolu conseil en image parce que mu ma jàpp ni peut-être kii di Boucher Ketchup influenceur la bi nga xam ne nii si wàllu euh, réseau social bi euh, di Snapchat la plupart moom lay utiliser ay followers yu bëri di ko setaan donc am na yenn image yoo xam ne tamit moom bu koy génnee il faut mu war ko xoolaat bu baax a baax a baax parce que dama jàpp ni lii yëpp moom la moom moo ko filmé moom moo ko dugal même boo ko filmé sax balaa ngay dugal il faut nga xool ko bu baax a baax donc lii yëpp tamit dafa war a bokk maanaam ñoom si métier bi ñu nekk ñoom si liggéey bi nga xam ne nii moom lay def du question da ngay filmé rek dugal mais il faut que tamit mu àndal mu ànd ak lii di professionnalisme maanaam jaay gerte sax boo ko waaye def da nga am noo ko war a defee. donc tey jii nii boo demee ba yor sa portable des centaines de personnes wala des milliers de personnes di le na loo xam ne waroon nga ko waroon nga ko ñàkk dugal war nga xoolaat bu baax a baax donc du n'importe quoi wala n'importe comment nga war a dugalee yenn image yi donc mais li am am na ba pare Viviane gis nañ peut-être euh, mun nañ wax ni weenam yëpp ngeen baa ma si moo bi moom ci biti donc lii moom kenn mënu ko ni yee naan euh, peut-être euh, film bi nu ma ko jëlee la mais mënu nekk <laughs> lu gars yi doon naan naan cus feeñ na feeñ donc loolu moom amatul peut-être incha allah wala Viviane gëm naa Viviane ba image yi génnee peut-être wax na ak Ketchup ba moo tax kii di Ketchup daal euh, dugg si mbir yooyu mbokku internet yi bu paree foofu dañuy dugg suñu deuxième partie émission lu bees émission au qui est au de toutes les générations comme ni la koy waxee woon deuxième partie bi nag si wàllu politique la ñuy nar a waxee tey kuñ dala tey mooy Ahmadou Diouf. bu nga xam ne nii bokk na si mouvement yeesal bi nga xam ne kooku di Serigne Ndiaye moom moo ko jiite waaye tamit xam ngeen ni artiste bu mag boobu di Queen Biz xam ngeen di gis nga à chaque fois amu yëngu si wàll politique moom tamit si mouvement yeesal boobu la bokk. Ahmadou Diouf wala Mamadou c'est la même chose non Mamadou Diouf Ahmadou Diouf Ahmed Diouf yooyu yëpp c'est la même chose. c'est la même chose ngi lay nuyu. waa Rasoul maa ngi lay nuyu di nuyu chers internautes hmm. Sénégal. et je pour la population marocaine bi nga xam ne mu ngi vivre euh, ay séisme mm-hmm. aussi du nuyu sénégalais yëpp du nuyu particulièrement waa Rufisque di nuyu aussi sama ASC ASC Guy Salane de Rufisque mm-hmm. voilà di la remercier aussi si mm-hmm. accueil bi merci beaucoup c'est toujours un plaisir euh, mais mouvement ànd yeesal moom fu mu toll dafa mel ni fu mu toll nii yéen a ngi si euh, waajtaay élection yi gis naa Queen Biz ak yéen a nga xam ne nii mooy kii di Serigne Ndiaye yow nga bokk maanaam si biir. Hmm. chargé de com wala conseiller. waaw ah, de la communication du mouvement ànd yeesal. Hmm. Hmm. alors nan ngeen di mën a waajal seen seen élection yi élection yi jëm ak seen candidature maanaam Sénégal yi xamaguñ leen. Serigne Ndiaye boo ko waxee peut la plupart des Sénégalais xamaguñ kan la. est yooyu mm-hmm. yëpp na ngeen ko nar a na ngeen ko nar a gérer. waaw moom dama koy démarrer And Yeesal c' est un mouvement national mouvement boo xam ne bu mu judd moo ngi am 21 comités. Mm-hmm. tey ñoo ngi si 34 comités au niveau national. Mm-hmm. bu ñu ñëwee nu avancé euh, tey nous avons participé aux élections législatives. ku xam Serigne Ndiaye xam ne c' est conseil à à africaine avec le président Abdallah Al Fattah. aussi euh, ñun tey euh, boo gisee li ñu boole Queen Biz et plein d' autres mouvements c' mu dafa yor mouvement muy MJR ñu ñëw et bon ñun nañ ko gisee comme suñu naataangu politique. moo tax ñu signé ak moom euh, alliance boo xam ne euh, c'est pour un engagement pour les sénégalais. Mm-hmm. donc euh, ànd yeesal yaakaar naa ne sénégalais bari xam nañ ko parce que gis nañ dévouement li ñuy def aussi suñu participation dans la citoyenneté. Mm-hmm. Mm-hmm. alors dina facile si wàllu parrainage yooyu. na ngeen nar a gérer loolu yëpp. waaw parrainage ñu koy gérer c'est facile parce que ñun dañoo am un programme un programme bien déterminé ñun programme bi si jox la ñetti points rek nous avons parlé d'une nouvelle génération la culture de travail dañuy jël Sénégalais bi ñu tàggataat ko mu gën a liggéey ñu ñëwaat ñu ne euh, tey ressources yi am gaz yi ñu am pétrole bi ñu am zircon bi sénégalais am ñu fexe ba sénégale bu nekk am si ñu ñëwaat aussi ñu ne la place de la mondialisation au niveau au niveau au mondial ñu ne Sénégal dañ koy jël tekk si place bi mu nekk ñu bokk si yenn pays yi nga xam noo ngi bokk si BRICS comme Afrique du Sud wala Égypte yi ko demandé et autres mm. donc ñetti points yi laay soulever rek pour di la wax ne ñun euh, avec notre programme waxuma la pare naa sax mais nous irons aux élections présidentielles. jàpp ngeen ni ce sera bon euh, tout chemin est difficile mais euh, ñun gëm nañ ne réforme bi gëm parce que ñun dañee ñun gëmuñu révolution ñun réforme lañ gëm li ñu gëm mooy changement sans violence changement boo xam ne tey c' très positif parce que Sénégal nous sommes 17 millions d' et au moins mën na développer boo seetee depuis 2012 le président Macky Sall a reçu plus de milliards. Mm-hmm. ñun tey 38 milliards bi ñu ko recevoir woon présent Sénégal day développer moo ngi wax ay deux cent millions pays boo xam ne ñun nous sommes juste dix euh, sept millions dix mois. Mm-hmm. vraiment à chaque fois ci dama leen gis euh, ngeen di clash euh, lu su mel ni Macky Sall ça veut dire que mu ngi wax ne yéen opposition opposition vrai vrai opposition ngeen. Mm-hmm. mais opposition bi nga xam ne nii fan la ñuy commencé tey boo waxee opposition sa xel mënu jóg ci kii di Ousmane Sonko ak lii di waa Pastef mun nañ sax wax en général peut-être yeewu askan bi mais fu mu to nii depuis temps yi yëpp. dafa mel ni waa Pastef Yewwi Askan bi dafa am benn silence total bi nga xam ne ni moo am maanaam seen biir la nga jàpp ni peut-être moo waral silence boobu leen bon man silence li ma ko a jàppee euh, c'est une question de réflexion mm-hmm. maanaam boo gisee tey dañoo ñëw nu jàpp ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko tegal ko huit chefs d'accusation jël ko euh, mettre à la disposition de de de l'administration pénitentiaire de Sébikotane mm-hmm. maintenant nu euh, jël Pastef aussi dissoudre ko. mais il faudra prendre en considération que en 2019 Ousmane Sonko ba muy dem élection du Pastef moo ko yóbbu élection coalition moo ko yóbbu élection coalition jot na donc tey y a coalition Yewwi Askan Wi qui en train de préparer des stratégies très positives pour préparer le candidat je ne sais pas si ça sera Sonko wala aussi un plan B pour le Pastef mais en tout cas Euh, silence boobu noonu man dama jàpp ne travail te bon c'est pas c'est pas une silence parce que on voit que euh, Ngagne Demba Touré moo ngi ba Mali di wax tamit. am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi si dëkk bi di wax. mais ñoo ngi wax mais fi mu toll nii Sénégal yi déglutul leen Sénégal yi ñuy déglu mooy fi mu toll nii candidat Amadou Ba sorti Aly Ngouille Ndiaye donc si loolu lañu gën a focaliser wu que affaire de Pastef affaire de Yewwi Askan Wi. non xam nga Pastef euh, parti la mais dafa am slogan boo xam dafa dafa am tey chaque jour yaa ngi gis moom dans les stades. partout dans le monde foo dégg ñu naan Sonko li xale naan Sonko namm naa la ça sa ça ça devient de plus en plus euh, extravagant moo ngi avancé de plus en plus donc tey dañoo gis benn révolution boo xam ne c'est moral vis vis à la jeunesse barki démb mën nañ jël exemple Esat ma euh, ma Sénégal voilà toute baa ngi riir naan Ousmane Sonko namm naa la hmm. donc ça prouve que l'idéologie de Ousmane Sonko a été reçue par les Sénégalais hmm. donc moom doon na koo a a pourquoi loolu mais il est dans il est dans le cœur des Sénégalais. Euh, mais nekk cœur des Sénégalais bokkul ak dem élection bokkul ak lu nekk si scrutin yi donc la même chose. non pour te dire que euh, on peut dire que la jeunesse représente les soixante-dix pour cent de la population. tey tey tey Ousmane Sonko bu demoon a Macky Sall élection Ousmane Sonko da koy gagné balaa midi mu gagné ko tey tey tey si Macky Sall la légitimité d'être candidat Ousmane Sonko aussi avoir euh, la légitimité d'être candidat balaa ko. mais loolu loolu foo ko teg que gis nañ si élection yi nga xam ne nii élection euh, Yaakaar 16 heures dinañ fekk lépp jeex te bi nga xam ne nii moo fa am. waaw mais on yi bëri day bëri ay njuuj njaaj surtout certaines élections aussi des listes parallèles donc loolu moom mënul ñàkk élection mais je te parle des élections présidentielles cette jeunesse là. li nekk seen xel ak li nekk seen xol mooy Ousmane Sonko. Hmm. jàppoon ni fu mu toll nii mu waa Pastef mun nañ fexe maanaam mun nañ toog di xalaataat kan moo na a remplacer Ousmane Sonko. Hmm. au lieu que ñuy focaliser wu ci kii di Ousmane Sonko est-ce que mënuñ toog wut numéro euh, pour pour te pour te répondre Ousmane Sonko espoir la pour waa Pastef espoir la pour une jeunesse ñi bokk sax ci Pastef sax dañ ko yaakaar mais euh, pour vous dire xam nga ku ñu teg huit chefs d'accusation ça veut dire on t'a quelque part. maintenant y a des discussions judiciaires euh, tey bu maître Tall génnee wax suba Ismaïla Madior Fall génnee Ousmane Sonko n'est pas légitime mais je vois que peut-être Pastef ils ont un plan plan B gëm naa loolu ne war def yëpp. kan nga ci yaakaar peut-être. ah non man je peux pas donner de non mënu ma joxe a plusieurs profils yoo xam ne nekk mooy lan bëgg Sénégalais mm-hmm. bëgg Sénégal changer gëm révolution boo xam ne c'est positif. Mm-hmm. donc loolu la. tuy tur turu kii di Guy Marius Sagna à chaque fois day day ñëw si si si làmb nit ñi est-ce que jàpp nga ni peut-être am na potentiel bi bi nga xam ne ni mën na représenter lii di euh, parti Pastef. waa gëm naa loolu gëm naa loolu Guy Marius Sagna a un bon profil de même que plein d'autres personnes de même que Déthié Fall de même que Tahirou Sarr ils sont nombreux. Mm-hmm. voilà ils sont nombreux même Ngagne Demba Touré xam nga ñu bari mën nañu ko remplacer. Mm-hmm. voilà parce que ils ont un bon profil et aussi ñoom gëm nañ li Ousmane Sonko gëm boo gisee sax profil bi nga jël ku mel ne Guy Marius Sagna li Ousmane Sonko défendre loolu lay défendre dane benn multinationale duñ ko baalati bor te dafa gëm